xale yi tamit liñ def ñaaw na waaye maa ngi lay dexal ne sëñ bi mhm. am na kilifa diine yoo xamante ne ak kilifa aada di nekk si réew mi chaque jour ñu ngi fay ay millions pour seen vidéo buñ ko génne ci réewum Sénégal ci réewum yoo xamante ne tout le temps rek ñu ngi fay ay xale mhm. ay millions pour buñ génne seen vidéo sëñ bi li nga wax doy na waar de waaw li ma lay wax dama see am ay preuve leer naññi yoo xamante ay kilifa leen la diine leen ak kilifa aada ñu nekk si réew mi def lu mel noonu ay xale caméra leen mhm. yor seeni vidéo yor ko par di leen sant. gis nañ ne première bi njëkk a am euh, jour corte bu guddi gi ci la amoon gis waxtaan ak moom nag ci actualité gis nañ ni imaam bi am na lu mu waxoon di ko ñaawlu moom nag kilifa la moo tax ñu jël si ko fi pour mu waxtaan ak askan bi lan mooy waral xale yi def vidéo di ci ay ñaawte fa Seydina Ali ñu ngi lay ziar. alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil Seydina Muhammad ibn Abdullah ñoo ngi sant yàlla bu baax di julleeg sëlmal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di Euh, vision ak waa Sénégal yëpp. Mhm. si waxtu bi di la ñaan yàlla tawféex. Mhm. di yàlla sunu vidéo bi képp koy seetaan yàlla na la fekk si jàmm ak sutura. ak faju aajo saa yor baatin barke bi sallallahu alayhi wa sallam. allah mm. sëñ Aline dañoo gis actuellement Sénégal saa bu feet amee xale yi commencé génn di def ay vidéo yu ñaaw yu salté mel dañoo ñàkk wala lan moo war ñu koy def. waaw alhamdulilah rabbil alamin euh, xale yi nga xam ndax rafetut. waaye tamit dafa ñaaw si waxtu buñ ko defee ñoo ngi baalu ñëpp àq si weeru koor biñ génn bisu korite bisu jaamu yàlla la di bisu foo mhm. bis la boo xamante ne bis la buñ jaamu yàlla ba mat fanweeri fan ñu génn muudam koor di ñaan yàlla yàlla nangul ñu ko ñu koy ñu koy feete sallallahu alayhi wasallam wax ne bis boobu na ngeen na ngeen na ngeen sol yére yu rafet na ngeen xeeñ parfum na ngeen daje ci penc ma wala si si jumaa yi ngeen julli ñaar rakka ñaari rakka sunna la def ko ngir lan ngir feete guddi bis li ngeen li ngeen li ngeen weesu mooy fanweeri fan yi ngeen woor mhm. bëccëg gi lekk guddi gi lu nekkee gis nañ nag ay xale yoo xamante ne ñu ngi si réew mi di doomi réew mi def ay vidéo di sëy comme ni ko duñ ko xamante ne yàlla ci tubaab bi lañ ko doon gisee si daaw ñu ko xamee Sénégal mhm. ñu dem ba suñu doomi réew di ko def loolu lu ñaaw la mhm. loolu nag bokk na si ñàkk laaj ñàkk ñàkk gàllaaj ñàkk gàllaaj ñàkk dina ko def hmm. xale yi tamit liñ def ñaaw na waaye maa ngi lay dexal ne sëñ bi hmm. am na kilifa diine yoo xamante ne ak kilifa aada di nekk si ah. réew mi chaque jour ñoo ngi fay ay million pour seen vidéo buñ ko génne ci réewum Sénégal ci Sénégal gi ñu nekk ñoo xamante ne tout le temps rek ñoo ngi fay ay xale hmm. ay million pour buñ génne seen vidéo sëñ bi li nga doy na waar de waaw li ma lay wax dama ci am ay preuve yu leer naññi uh-huh. yoo xam ne ay kilifa leen la diine kilifa aada uh-huh. nekk si réew mi uh-huh. def lu mel noonu ay xale caméra mm-hmm. yor seeni vidéo yor ko par di leen santaas comme mbir bi daal nekkul xale yi kese koy def déedéet nekkul xale yi kese ñaaw na nag mm-hmm. waaye nekkul xale yi kese koy def mm-hmm. du ma encouragé xale yi yaa may dégg waaye dañ nag ndaw du nekkee ne dafa tegul ci yoon da koy jéem a ñi nga teg ko ci yoon mais su fekkee ndaw tegul ci yoon ñi ko war teg ci yoon nekk def naka su dul noonu mm. est-ce ñoom dinañ tegu ci yoon waaw ci jamono ji dëkk bi dafa am ay loo xam dafay nekk di xabtal ndaw ñi ak mag ñi. mooy lan mooy rab. rab xam nga rab gars yi ba tey bàyyiwuñu xel ne rab ni muy yàqalee nit ki dafa dafa dafa doy waar dina la xabtal ba def loolu loo xamante ne bëggoo kaa def mm-hmm. nga def ko par réccu xam nga ñëw ko ña ko defoon tey xale yooyu ñu ngi réccu. ñu ngi réccu mag ñi demoon si appartement xale yi simeeku fa di foo ay xale yu ndaw bañ caméra leen ñu ngi réccu chaque jour ñu ngi fay ay millions laax. li ma li lay wax lu leer ndax man maa xam réew mi. am na ñoo xam te ne daal bu noppee am lu nu fay rek. seen àdduna yàqu seen mbir seen mbir yàqu. ndax man maa xam réew mi ndax maa jaxasoo ak waa réew mi ñu baax ak ñu bon. borom solution kay ku ne yow yaa borom solution kon jeexal na àdduna kon loolu mooy am Sénégal xale yi ay vidéo yaakaar naa ne huit huit vidéo la xaw ma euh, douze waaye lu mën a am rek vidéo yi ëpp na loolu. ëpp na loolu am na vidéo yoo xam ne vie privée la kenn wax lu mel noonu nga ne bëri jigéen ñoo xamante ni kaaraange mooy tax dinañ dem bay jaay seen bopp waaw Sénégal dañu toll foo xam si xiif mm-hmm. si borom alal yi dimbaleetuñ mm-hmm. da gis ku yor ay milliards denc ko si banque bi mm-hmm. am koo xamante ne du du añee du reer du reeree du ndékki kooku doomam du ñëwee nu mu ko joxee rek gërëm na fekk demeewul noonu ñàkk gàllaaj nag dina dem ba ba doomu aadama def loo xam du ko tey moo tax incha allah dinañ dugg ci gàllaaj ñu wax la point par point pour gàllaaj lan lay jëriñ doomu aadama mhm. ndax nit ki dina sangu rek te xamul li muy muy sangu lan la yaa ngi dégg ba xale itam lu ëpp bayre bayre bayre bayre bayre ba ëpp baaxul baaxul bayre bu ëpp amul kaaraange baaxul bayre bu ëpp lan lay def bayre bu ëpp dina def loolu xam xam xale yi tey am na ñoo xamante ne tey man mi borom solution mhm. am na ñu lay woo naan dama defal ma bayre defal ma bayre defal ma bayre dama lay teg ne la balaa ma laa defal bayre dama lay utal kaaraange ba pare kaaraange waaw ndax du ma la defalee bayre te di nga dugg si tuuxu doona boo xamante ne àdduna yëpp koy dégg. du bayre caaxaan moo tax bayre bu may joxe du ma gaaw a jox nit balaa ma kaa jox nit dama ka ba pare ci kaw ak ba lépp loo xamante ne jógee na fee du la dal ma door laa nag jox bayre àdduna yëpp dégg la. su da ngay ñag sa kër ba xam sa njaboot duñ def dara loo xam te ne lu ñaaw la. waaw doomu aadama yi defatuñu lii ma lay wax mooy lan mooy borom kër daan na toog. Mhm. dem ci kilifa diine ku mel ni man borom solution jox ko say turi ko ñaanal ma samay doom pour yàlla aar leen mhm. waaye léegi la ñuy daw. gisatoo ñuy di ñëw ci yow comme ci côté boobu. am na ñuy ñëw waaye bëreetut. Mhm. comme ñu la ñaanal ma sama njaboot gi jël liste jox la. Mhm. fay la xaalis bu bëri ne ñaanal ma sama njaboot gi pour ñu am kaaraange pour ñu jub pour ñu nangam pour ñu nangam ndax mbaax nag dañ koy sàkku mbaax dañ koy sàkku mbaax si yàlla lay jógee waaye dañ koy yaakaar fenn Mhm. nga ñaanal leen ba ñoom ñëpp tegu si yoon ba gàllankoor dal seen kaw. am nga loo fi waxoon nga ne am nga benn uh, galaaj boo xam ne boo ko joxee jigéen góor gu ko toog gu tëdd moom dootu nekk góor bu ko tiim. waaw loolu man maa ko wax. Mhm. te ba tey maa ko wax dama ne am na galang bu ndaw gu may joxe. Mhm. feek ma ngi koy takk si ndiggam góor gu ko tiim awraam du taxaw. du taxaw góor gu ko tiim awraam taxaw. du amee bu taxaw du amee jëkkër mu tekki. mu tekki du amee jëkkër mu tekk ndax jamono viol dafa bëri mhm. caaxaan dafa bëri waaye doo koy takkal su doom na fexeel bu mu xam ne ko lii rek kaaraange la takkal ko si ndigalam góor gu ko tiim awraam du taxaw mhm. bis bu amee na alxayri woo ko ba ñëw nga tekk téere bi mhm. bàyyi ak borom këram ndax loolu sariyaatu moo may mu ànd ak borom këram macha allah ah, li nga wax nii day euh, jafe na ñu koy wax ci loo xam ne dafay dox spécial pour jigéen kon tey ji jigéen ñi xam ne seen góor ñi xam ne ni ak jigéen ñi seen doom dugg nañ ci lool ñu mën a def ba seen doom génn ci waaw alhamdulilah rabbi man doo ñëwee si man mhm. dama lay dëddale ak loolu. Mm. même kuy jaay boppam sax. kuy jaay boppam du ñëwee si man du ma la joxe saafara dootoo xalaat jaay sa bopp mm. da nga ñàkk sa bopp ba doo joxe sa bopp góor mm. lu dul sa borom kër ndax jigéen ñi dañoo toll foo xamante ne xabtal am na jënd ñoo leen dugg rab yi. dañ lay dugg di la def la ndax nit day ñëw fi ne ma man nit ñëw na fii daanu ma yëkkati ko defal ko sama mbir ndax urgence baa fi xam nañ ko. Mm-hmm. dugal ko sang ko génne ko mu ne ma eur bu ma daanoo ba jug sama xel mi si góor lay nekk. ci góor waaw. mu ne heure bu daanoo ba jug moom xelam si góor lay nekk. ci lay nekk waaw kon kooku kon duñ ko dimbalewut dina sànku te fekk ne dafa am lu nekk moom. Mm-hmm. moo tax am na loo xamante ne rab la da lay xabtal di la def lool loo xamante ne doo ko tey say mbokk génne la parent yi maa ngi leen di wax bu ñu génnee xale yi. Mm-hmm. génne sa doom baaxut. baaxut mais bu ñu waxee loolu dinañ wax ci ñi nga xamante ne ñoo jël vidéo yi di ko partagé jël téléphone jàmbur fexe ba gis vidéo yi fi nekk. génne ko partagé pour yàq àdduna waaw loolu lépp nag euh, mu ngi tënkuwul si ñàkk sutura. ñàkk sutura. ndax téléphone nit ki war na am fulla fayda ak sutura ba du jël téléphone jàmbur. Mhm. waaye lu gën a yées rek mooy xale yi def li di ko def waaw sutura amut ñu ko def te bi amuñu sutura ndax xale bu jigéen góor ton dama laa wax ne la bis bi ñu ko def dafa ñaaw si lislaam mhm. bisu korite bisu jullit la bisu feet la boo xamante ne ñun jullit dañoo war a feete suñu bis wane ne jullit ne woor nañ fanweeri fan. bis bii man mm. na pour ñu ñëw feete wane ne ñun kontaan nañ ñun jullit ñi li ñu yàlla teg te nangu ko te mu nekk si lislaam muy koo weeru woor weeru koor bi muy fan weeri fan yi ba ma sëkk. Mm-hmm. macha allah euh, ba tey dañuy waxtaan ci mbiru seet bi may def parce que bëri na ñoo xam te dañuy ñëw nga seetal leen wax leen ne ci ñoom même ku nekk loolu noonu di nga xam. waaw xam nga man yàlla ma dimbalee benn affaire man sama nuuraani sama euh, sama sama sama leer li may seete ak li ma yàlla may dama ko wax fii nit ñi dañ jàpp damay bàkku billaahi wallaahi wa taalaahi yàlla laay seetal samay mbir bàkkuma nit dina ñëw fii man la démb mooy nga yàlla. ndeysaan nit dina ñëw fii toog mu ma ne ko démb sëy nga ak diw. te doo ko nëbbal dara. man du ma nëbbu man yàlla dama ne ku bañ ma xam wax la sa bopp bu ma seetloo Serigne ba Touré solution ku ko woo mu wax la li nekk si yow ku bañ a xam sa bopp bu ma seetloo. mais seen diggante lay yem. ah man fii sa sa yaay sax doo àndoon ak moom ñëw fii si biro bi xam nga fii bureau bi nga lañ toog. Mm. duñ ñëwoon yow kenn yaa fi toog. Hmm. sa yaay doo anam dama naan la may ma ba ma pare ndax li may wax ak yow concerné wu ko man la concerné ak yow miy lu hmm. yaa may dégg du nga paree nag du la neexee sa waajur du la neex nga nekk lu ko lépp loolu yow la concerné. mais dañuy gis ba tey ngay yëngu ci mbirum noob est-ce que nekkul bi ngeen def ku mel ni yow noob bi ngay dafa efficace ba ngeen ko defalee koo xam ne takkul aussi du sonal jigéen ñi. waaw alhamdulilah rabbil alamin noob moom dama koy liggéey du ma xam nga euh, caméra yi tiim ma du tax ma n du ma noob hmm. damay noob. Mhm. nopp boo xamante ne vingt quatre heures la mhm. vingt quatre heures ma mhm. noob la ki nga bëgg mu wuyu si la waaye nag nekkul ne ay galak franc bari na ñu may woo dama naa la mbaa am nga jabar danga danga koy takk mbaa mës na laa bëgg teg si ndax jigéen doo ko noobee ba mu bëgg la dof la lay lay doon ndaxte xelam nekku fa waaye du nekkee mës ngeen a bëggante doo wooyee ma noob la nekk sa jabar la Hmm. mu nobal la nekk sa jëkkër la day taxawaalu mu nob ko hmm. si vingt quatre heures mu ne nemm si benn place loo ko wax loolu lay def loo bëgg loolu lay wax ngeen ànd sëy yàlla rek tax. mais lépp ci farata rek lay tegu. lépp si farata lay teg ak su sunna. macha ndax góor ñi am na ñoo xam ne takk nañ jabar ba pare tooguñu. Hmm. ñoo ngi dox fu nekk ñu ne fa cuccap mel ni prison voyage. ja jigéen ñi am na ñoo xam ne seen jëkkër du du génnee ñu daal di namm seen tànk. kër kër xale bu góor bu ñu dem fa. la jox pour ñu war kaa dundee jox mu ànd ak ñoom. loolu jigéen yooyu baaxul. baaxul waa baleen nag pour ñu dem taxawaalu ji da ngay yokk caga si réew mi. Hmm. kon da nga leen noot pour ñu toog hmm. seen jëkkër mën leen a jëfandikoo ñu nekk sariyaatu ak sunna. Hmm. macha allah euh, ci loolu nag ci lañ profité euh, dañuy gis parfois Sénégal ñi xam te ni euh, dañuy dee ci manifestation ci accident yi nga wax nga ne am na ay ga ay ndombo yoo xamante ni ci yow képp koo xamante ni yaa ngi koy jëfandikoo c'est lépp baax. waaw xam nga nombre bi mooy nombre la solution. ndeysaan normal gi wane woon naa ko wane waat naa ko koor gi dama kaa wàññi koor gi ku ma doon ëwal dafa ëw ba sonn koor dama kaa wàññi woon mhm. maa ngi ko defoon fukki junni ak benn ndax pour bëgg jaamu yàlla si jaamu yàlla yi mhm. ndax jaamu yàlla da ngay jaamu yàlla si jaamu yàlla yi nombali ku ko doo accident mhm. man maa ko wax man signal Touré solution doo dee si gàcca doo tukki doo doon bëgga tukki yàlla dina def nga tukki yaa may dégg doo doon ut liggéey di ko am di nga am kaaraange di nga am bayre da kaaraange mooy jiitu bayre xale yi seen dee yu ñuy dee si mbedd yi deewu kaña yooyu baaxul ñàkk galaaj moo tax ñuy dee. du na tereel. deewu kaña la. Mhm. kaña mooy génn fii ñu ay xeer mu dee xale yi war nañoo romb dee googu mhm. nag moo lay musal si yu mel noonu. dee ndox dee yu accident dee yu yàlla sawam na nu ngay dee waaye nag alhamdulilah yoo xamante ne deewu kaña la. fagaru day. gën faju. Mhm. ndax tamit accident yi bëri woon na yàlla bu mu fi yàlla bu mu fi amate waxoon naa ko fii am ñu waxoon accident yi dina ñëwaat man leen jeex na mm-hmm. wax naa la ko mm-hmm. ne accident yi jeex na dootu fi am mm-hmm. lu tax ma ne jeex na lan la tax ma ne jeex na maa ko xamoon maa def samay mbir génne samay sarax si jaamu yàlla yi nga xamante ne déggoon nañoo man ma génne ko assida yi jeex bu naa du ci ñetti ñaq yi jaaxal na àdduna waaw kay ñetti ñaq yi nag sirru la sirru sirru bëri nañ ñu bëri tey ñu ngi teg ay leget di def waaye ñetti njaq ba ma koy wax jëlee ko sama waajur bi muy alaaj Birane Touré hmm. radiyallahu anhu mu jële ko si baayam hmm. ma jëlee ko si moom mu hmm. ñetti njaq yi la solution xamante ne urgence laa ko def urgence fa ma def ñetti njaq yi ma ngi fii si biir doo xoolee lii ma gis si ñetti leget yi bu xonq la ak bu weex ak bu mel ni lu mel ni lu mel ni gris yooyu mooy ñetti njaq yi waaye day ànd ak alquran fañ koy sangoo lañ fa samp man maa ko xam ndax maako samp sama kër la maako moom mm-hmm. maako fa samp ku fa dugg nañ la liggéey mm-hmm. yaa may mm-hmm. nañ la kot feetu liggéey bu bon buñ def si yow doo duggee si ñetti njaq yi mu dañ macha allah daanu rab bañ lay jàpp di la indi amul problème mu rab problème mu euh, faru rab kasaalika lépp doo duggee si ñetti njaq yi doo génnee dem dox ko soxla mhm. du ma dañ di ko wax surul la buñ fa def ñaari junni ak téeméer la mhm. ngay fay mhm. kenn ku dugg ñaari junni ak téeméer la ngay fay dugguñ sangu si ñetti njaq yi génn dem sa yoon sa aajo yi nag faju nga wér ànd ak kaaraange dem dox si soxla yi loolu fenn rek la am fii si kër la solution incha allah mais mbirum góor aussi sonal na àdduna sonal na askan wi ngóor ban façon. Euh, faiblesse. faiblesse euh, euh, bëri na xam nga jamono ji maa ngi lay wax ne ñëpp a ngi jaay ngóor mm-hmm. mbër yaa ngi jaay ngóor journaliste yaa ngi jaay ngóor animateur yaa ngi jaay ngóor ngóor ngóor ngóor ngóor ngóor naan nañ ba gën a feebar sax dañ dañoo naan ba feebar mm-hmm. ñu jotoon na am at lëf naan nañ ba feebar man nag ngóor yàgg nañ ko dégg sëñ Aliou Touré borom na ñaari at. ci ginnaaw may wax ne a man rek ko man waxuma ko ngir bàkku dama ka xam mbir doo koy def ay at chaque jour ñu la si jox jox résultat doo ñaar doo ko def joxe fukki nit juróom-ñeent yëpp ne gis naa résultat kenn gisuma kon yow am nga résultat mhm. kan moo am résultat kon yow moom am nga mhm. ngóora nag sa sa kanam gàtt nga baal ma si kàddu yi mhm. sa awra nag gàtt ba mel ni tomb gerte man Serigne Aliou Touré borom solution du ma la jàppee lii laa lay jox Mm-hmm. gàtt saf gi mm-hmm. nga diw ko juróom-ñaari fan sa mm-hmm. kanam tol ni nga bëgg ni nga bëgg yow lay tol ngay seeg sa jabar num la neexee muy yëg ta du delluwaat am na ñu bëri kanaaw bu ñu laalee yeneen garab yi dañ naan dafa delluwaat man nag naturel la du delluwaat fa lay yem comme ni ko bëggee di seeg soxna si heure boo demee xam nga euh, nga nga baal ma sa kanam di jug tout le baaxut kanam dafa am lu ko war a jugloo mm-hmm. doo jàkkaarloo sa jabar sa kanam na jug mm-hmm. nga sëy ak moom doo paree sa kanam na wàcc mm-hmm. waaye ku naan la foo toll yaa ngi ko dal ñu baal ma si wax ji garab googu baaxut garab gii mooy garab la solution bi xamante ne moo tukkal àdduna bi àdduna yëpp ñu ngi koy wër dama amul effet damaa waxoon ne dootuma ko publicité it ndaxte bi lu ñëpp di xam jaru publicité sa yàlla turé borom solution si garabu eh, eh, ngóor ñëpp xam nañ ko sunguf bi nga xamante ne maa ñoo ko xale yee ko tudd këcc Serigne Aliou Touré borom solution dëgër këcc xamante ne doxoon naa ne léegi mu def effet léegi mm-hmm. ñi nga xamante ne dem nañ ba màgg amuñ tuñ doole sëy ñoom lañ koy jox mm-hmm. ñu naan ko mën a sëy rapidement mm-hmm. ndax mag am na fa muy toll juróom benn fukki at il faut mu am lu koy dolli kàttanam pour mën a sëy ak soxnaam surtout mag boo xam dafa dem ba am juróom benn fukki at am xale ba am ñaar fukki pour nga jox ko li mu bëgg il faut que nga dolli sa kàttan tuuti kon dolli sa kàttan kooku maa ko yor kon na wàllu sëy émérite tamit naa la si wax lu doy waar. ak siti ak ndoxum siti mhm. xamante ne li ma siy def bëriwul Sénégal ñu ko mën xam nga mhm. kenn mënu ko du wax yàqu la mhm. bëriwul Sénégal ñu ko mën mooy ndoxum siti dama koy faj si juróom-ñaari fan. juróom-ñaari fan bu nekkee émérite ñett fan mu tàqali ko yow. macha fan ab du juróom-ñaari fan de ñett fan nga tàqali koog ndoxum siti kon loolu yaakaar naa ne. leer na waa askan bi Sénégal leer na àdduna bi ndax garab yi dem na fu ne si àdduna mhm. ñu ngi nii si waajtaay boo xam dañu war a tukki dem Mauritanie dañu fa jógee dem Maroc dañu fa jógee ñu ngi si waat si réew wàcc yoonu Afrique yi si réewu Afrique yi pour lan ngir garab yi rek la ñuy yóbbu ñun demuñu ay Côte d'Ivoire di uti garab suñu gàncaxu réew la ñuy defar mhm. garab gii xamante ne mooy dambal mhm. liggéey ko boole ka lañ koy composé pour ñu mën a jox Sénégal luñ bëgg waaye dem ñu ko dewaat di jël ay Andra Buré euh, yu mel noonu déedéet ñu suñu garab ñoo koy liggéey suñu loxo dem si àll bi uti ko ñëw defar ko jox askanu Sénégal te maa ngi wax am na garab yoo xamante ne ku koy jël tout le temps tout le temps tout le yoom hmm. mooy lan dem ba doo mën dara sa sidit bi dem ba yàqu am na garab yoo xamante ne mën na laa jox puissance léegi doo paree mu yàq sa awra te loolu tamit yal nañ si yàlla musal baaxu si réew mi dañuy wax ci mbirum kayit yi mbirum kayit mais Seydina Aliou Touré borom solution moo si kaw. waaw loolu du nekkoon tijji nañ ligne bi ñu ne nañ woote woote. Mm. ñu ne allo wax seen soxla. Mm-hmm. billahi dinañ wax bu doyoo gis nga man passeport yi. Mm-hmm. ñu ngi nii. Mm-hmm. du ma dañ di ñaar fukki fan ak benn nga may jox sa passeport. ma liggéeyal la ko. si baatin ambassadeur boo ko taaloo ñu tamponné doo xaar ba sa rendez-vous def ñetti fan. nga ñëw di ma ko jox ndax man mi lay wax ne naa la tamponel man tukkikat laa ku naan la naa la ñaana nga tukki te man te génn caaroy kooku doo amee fu la dëgg ku la ne la ñaan ñaan nga am xaalis man te yor ñaar téeméer doo doon doo amee fu la nekk waxoo dëgg hmm. du nekk yaa ngi biti réew ti bëgg séjour bëgg ñib si si réew mi wala dem si yeneen réew mu tëla doo ma woowee jox ma tur bu nekk si passeport bi man la tëjal passeport bi man liggéey lu may liggéey balaa moo am ñaar fukki fan ak benn incha allah déposé dañ la woo la séjour a ngi nii génn na hmm. loolu xam nga leer na du nekk yaa ngi réew ma amoo liggéey tamit doo ñu wooyee dañ fexe ba ñaanal la yàlla ba nga am liggéey waaye suñu liggéey bari nag dañu si dugg léegi muy xalwati ya ñun suñu liggéey xalwa ak hmm. tée ndax léegi rek ba avant ngay ñëw fekk nga ñun suñu mënit muy kurus la bàyyee suñu maam yi bàyyee ñu ko suñu bàyyi bàyyee ñu ko kurus rek lañ xam hmm. te jamono ji dafa am ñoo xam dañoo war a teewlu kurus borom société yi hmm. yaa ngi dégg barki dem rek danañ dugg ak réalité farba taal nañ këram imaam bi am na lu wax. imaam bi. yooyu yëpp ak ak kurus. Hmm. lu muy lu muy jëriñ nit dina dem ba du safati askan bi. loolu ñàkk bayre dina ko def. imaam boo xam ne dem nga daaw wax nga ñu weddi la ren nga wax ñu weddi hmm. waat la. dana waat. te imaam nguur ak opposant hmm. war xam xàmmee buur war a xàmmee baadoo la hmm. moom kan xam war a xamee mooy jaamu yàlla yi nga xamante ne ay jullit lañ ñëw rangé wu si ginnaawam pour ñu doy leen leen pour ñu war leen a jiite waaye hmm. imaam grande mosquée bi li mu wax dëgg-dëgg duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko wax dara ndax mag la hmm. waaye nag doy na waar man bëgg naa xam lan la wax dama dégg ñu naan xaw ma ay ku deewoon ci manifestation yi sa war a nga jëm yooyu noonu ndax loolu amul fu mu ko teg waaw xam nga bi maana manifestation man duma ko digale duma ko digle ku si dee safara la jëm duma ko wax lu tax xale yi di manifesté wu ñoo ko xam duma ko digle nag man juglee ñu manifesté wu adduna jaralu ma ko benn homme politique jaralu ma ko du nguur du opposant max maara yu dañuy plodé dañuy dañuy génn marche manifester man ma maaraayu bokk ma si xam maaraayu ñan la maaraayu mm. ñàkk dépense yi ñàkk dépense ñooñu ñooy wër daan dañuy waaye man duma ko wax mm-hmm. am na nag am naa féete am naa féete mm-hmm. ku nekk am ku nekk sa mm-hmm. xam nga fu ma jaar ma Macky Sall Sénégal xam nañ ko juróom-ñetti at laa ànd ak moom di liggéey ak moom nekk conseil municipal de la commune de Yëmbal di liggéey di liggéey ànd ak moom référendum mhm. dem naa ba téye sama tànk antum ñoom mhm. ndax doyatuñ ma mhm. waxuma ma Sall doyu ma de ay nitam ñenn ñu doyu ma te mënu maa joteeg si moom ma téye sama tànk na totoog macha yaa may dégg waaye du ma wax benn taalibe bi jugal manifesté wu moom fa la wax ba teg lool xam na la mu wax tamit ne nañ indi mille francs mille francs kan ah, kan lañ koy jox kan lañ koy jox imaam si boppam dañ kaa war a daggal salaire salaire salaire doo demee si réew yi man tukkikat bi dem si réew yu naari mhm. imaam du la kat oto bi muy yor état Sénégal moom lañu yor oto yu luxe lañu ñu yor mhm. yor kër yor salaire di fayeku mhm. imaam warta ñaan imaam bi dafa ñaan ah. ku nekk na indi mille francs pourquoi cent mille francs xutbaam waroon gërëm président gërëm opposant bi ndax gannaaw jiite na Ablaye Wade moom. moom moom jiite na Ablaye Wade. ndeysaan jiite na Ablaye Wade. Mhm. jiite na ab jiite na Macky Sall. Mhm. te ka fa war a doon président ëllëg war na kaa jiite. Mhm. kon war naa rafet ndax ëllëg duñ ko tegalee vidéo tayam yi suba mën naa ñaaw. mën naa ñaaw kon kuy wax tey na nga bàyyi xel suba. loolu lépp na imaam nag dafa war a sangu. imaam dafa war a sangu. imaam dafa war a ñaanlu. imaam dafa war a takk ndax dafa war a am bayre imaamu Sénégal zéro bayre imaam dañuy génn ne ay baara ñii kenn amu si bayre man maa ko wax man sëñ Aliou Touré mm. du leen neexee subaa ñu ñu ma jàmbara bindal ma convocation. macha allah imaam yi dañoo war a ut bayre te nekk ay ay kon ay responsable lañ ay kilifa waaye imaam yi euh, gis yéene ko sarax. loolu baaxul ko sarax te loolu c'est pas normal kon imaam war am euh, benn tolluwaay si réew mi. macha allah euh, continuer rek di wax naka ngay tàggatoo. waaw tàggatoo maa ngi lay wax léegi ne la kurus kilifa war nañoo ñaan lu teelu kurus kurus mooy loo xamante ne dafa doy waar. waaw kurus rek moo mën a boole. am na sangat yo xam ne du ko génne waaye gannaaw bu mu la teelee kurus def la sangat bi doo ko defee kenn mënta tere li nga bëgg am ko. maa ngi dégg nag candidat yi bari nañ. Mm-hmm. Idrissa Seck génn na. Mm-hmm. ndaxte Abdourahmane Diouf génn na mhm. Déthié Fall génn na mhm. Sonko mhm. am na ñu ne du doon candidat li may wax nañ ko déglu du caaxaan de Sonko du nekkul candidat Macky Sall du doon candidat dégg Sonko du doonul candidat Macky Sall président de la République du doon candidat Macky Sall ñàkk doon candidat bi terewul Sonko ñàkk doon candidat te wax naa ko fi keroog yaa ko jël man la saxaar dina bari fan yee gis ngeen dëkk bi yëpp di saxaar. ndeysaan maa ngi wax ne duñ bawul coow lii muy mambay ñaa ak Sonko ñu tëral ko. Mhm. te delluwaat si réew mi nekk ci jàmm. Mhm. Sénégal dara ju bëri dina fi tuur. ñu ngi jëm si nawet nag avant nawet bi coow lu bari dina am si réew mi. Mm. nawet bi ndox mu bëri dina fi wàcc. Mm. denc leen vidéo boobu ngeen teg ko. incha allah du si yàlla àndee. Mm-hmm. waaye dina wax daal xale yi nañ góorgóorlu mm. si sangatu nañ góorgóorlu si musluwaay ndax jaamu at doomu aadama musluwaay moo koy dimbale. Mm-hmm. fi ñu nekk muy daaru cubb timis kataram bi yaakaar naa ne ku fi ñëw xam nga sëñ Aliou Touré borom solution. doo génnee di nga gis fi taf. Mm-hmm. dix ba deux heures. la ñuy recevoir mm-hmm. duñ pare nañ noppalu ndax dañoo yore njaboot mm-hmm. trois heures ba six heures dañuy tëj suñu buntu ba subaati ku ñu woo nag duñ ñu ndax man am naa ay bras waaye maa yor samay téléphone ku ma woo man ngay jot man ngay waxal mm-hmm. la ma la may seq yow man ak yow la waaye daal mbir yaa ngi noonu ñu ngi ñaanal yàlla ñëpp tawféex euh, Gàmbi tamit incha allahu taala président Adama Baro mu ngi jëm si élection hmm? élection du yomb yomb waaw te nag nañ ko wax fii ñu déggaat ko mhm. am na deuxième mandat mhm. Hmm? Mhm. am am na deuxième manda waaw li muy soxla du ko am wala wala ñaan yàlla dëgg mooy tax mu am ko ndax gàmbit bi caaxaan teewu ko dëkk la boo xamante ne dëkk bi dafa bari mystique te ku mystique mën nga faa bañ a neewoon président macha allah loolu laa di wax xale yi ñu bàyyi xel ne sunu sëriñ sii nekk Sénégal mm. muy sëriñ Babacar Sy Mansour sëriñ Mountakha Mouhamadou Bachir mm. sëriñ maa ngi ñas seen maam yee leen fi teg mm. liggéey fi lu fi kenn defut mm-hmm. kon xale yu ndaw duñ toog si internet bi di saaga sunu mag ñooñu duñ ko nangu man de dama ne wax naa ko waxati ko ku ma dégg ngay saaga sëriñ Mountakha ma mooy sa tur ak mm-hmm. balaa vingt quatre ma noqule sama Aliou Xànjar bi ndax réew mënta wees ku mel ni Cheikh Mamadou Mountakha toogal fi sëriñ Touba xale bu ndaw toog fee di ko saaga lu ñàkk fayda loolu ñëpp la naqari kuy jullit ak ku am xol te topp suñ mag ñi mhm. loolu nag lu ko waral lu mooy koom-koom ñi nga xamante ne gëmuñu sëriñ si dugal nañ alal ci kër sëriñ si mhm. ba nit ñu gëm sëriñ si sax di ŋàññi sëriñ si macha te loolu waruñu kaa nangu mhm. kon loolu laay tàggatoo di la ziyaara di la ndokkeel di ñaan yàlla julli gi ñu weesu yal na yàlla defal ñu ko jàmm dañ jublu ti muy tabaski yal na yàlla yombal xar ak la si topp barkeen sallallahu alayhi wa sallam salaamaaleykum wa